question rek rapport ak événement bi am léegi léegi di arrestation Ousmane Sonko ban message nga am pour dañ ko arrêté léegi. waaye lool léegi li may wax ko mais lu ñuy mettit lu la. Uh-huh. ah lu tax ñu arrêté ko nag xaw ma ci dara mais maa ngi jokkoog Sénégal pour am des informations pour xam nan la demee ak lan la. est-ce que dañ ko arrêté dans le cadre du jugement ou est-ce que dañ ko arrêté pour leneen. donc comme nga xamaguñu lu xew. nañ nañu xaar ba xam lu ñu wóor ñu soog a réagir.